téere wujj bi bépp jigéen bu ko am kenn du la takkal wujj sa jëkkër na am gàllaaj sa jëkkër na am sëriñ sa jëkkër nangam ak nangam euh, pour li koy toj moom moo jafe li koy toj moom moo jafe xaw naa jafe xawut a jafe waaye daal bépp jigéen boo xam ne ne am na ko ñu wax ko lool pour jëkkëram takkal ko beneen soxna ah xanaa mu jël téere bi lemmi ko far tur bi nga xam ne ne boobu moom toñ na far turam waaye bépp jigéen boo xam ne ne am nga ko sa biir néegu sëy beneen jigéen du la ci fekk si surtout nag saafara bi nga xam ne ne moom ngay raxase sa kanam sëy ak sa borom kër loo ko laaj mu jox la loo ko wax mu def ko foo ko jëm loo mu jëm fa kooku moom moo tax ni mu ko daal liggéeye ba xam ne message bu ne ñu ngi ko siy jot léegi moom nekk am na caaxaankat yoo xam ne ne danga siy caaxaan waaye bii paa képp koo xamee na ni amoo jëkkër wala nangam ak nangam duñ la ko jox